jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp 24 point com ci suba ba léegi comme ni ngeen ko xamee nag tey jii ñu nekk ci euh, vote boo xam ne dañuy tànn ki nga xam ne nag moo war a jiite Sénégal euh, ni ngeen ko xamee rek ba léegi rek mu am juróomi candidat yoo xam ne am na ci juróomi candidat yooyu ñu daal leen koy fàttali ki nga xam ne nag moo di Macky Sall mooy euh, candidat sortant bi maanaam moom moo jiite woon réew mi te jamono ji mi koy xëccoowaat ak ñeneen ñeneen ñi nga xam ne itam ñoon la koy xëccool mënees na caa ràññee Idrissa Seck ñu ràññee ko lool moom Idrissa Seck waaye tamit ki nga xam ne nag di professeur Issa Sall ak ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ak tamit ki nga xam ne rek euh, moom moo di maître Madické Niang euh, euh, élection yi nag daanaka ba ñu suba ba léegi tàmbali nañ comme ni ngeen ko xamee huit heures la ñu waxoon ne lépp loo xam ne jëm na ci bureau de vote yi dinañ ubbi na ñoo xam ne tàmbali nañu seen ay bureau de vote huit mais tamit selon information yi nga xam ne am nañu ko bi ñu wàccee ci terrain bi ci suba ba léegi liñ ci mën a moo di am na ci yenn ci ay bureau de vote yoo xam ne am na ak yéexte gu bu ci am ci seen i liggéey maanaam daal yéex nañoo tàmbali lépp loo xam ne euh, jëm na ci fànn gu ni mel waaye nag laataa ñuy dikk ak yéen euh, suba ba léegi daanaka dara ump leen ci ak 24actu.com ak équipe bi nga xam ne jot nañ ko wàccee ci terrain bi Awa Ndiaye euh, yaakaar naa ne bëri ay centre yu bëri yoo xam ne àndoon nañ ci ak moom Mame Faty Kébé soxna asusi la Khady ci montage bi nga xam ne moo ci doon jàpp waaw justement ñu daal ñëwaat rek foofee sax euh, fa la voté euh, gannaaw nag euh, ba mu voté mu daal di yëkkati ay kaddu kaddu yi mu yëkkati nag daal koy jëmale ci ñaan réewum mu daal di moom njiitu réew mi loolee bokk na ci li nga xam ne damil ñaan na ko waaye tamit lépp loo xam ne jëm na ci fànn gu ni mel muy sénégalais yi nga xam ne tey dañ leen a woo ci urne yi ñu daal di ci jàmm ak salaam waaye tamit ci kaddu jeexantalam mu mel ni sax kuy tooñ moom njiitu réew mi doon wax que sax bu ñu voté ci jàmm ba pare lépp loo xam ne njuure fii jógee ci élection yi yi na nekk loo xam ne daal maanaam moom daal am na yaakaar ni dina gagné candidat Idriss Seck xam ngeen ko moom itam gannaaw ba mu voté ba pare def na déclaration am daal yëkkati ko daal koy jëmale ci lépp loo xam ne jëm ci Sénégal waaye nag mu daal di tàmbali rafetlu liggéey ñi nga xam ne nag ñoo di presse bi euh, muy taskatu xibaar yi nga xam ne daanaka ba campagne bi tàmbalee ba léegi ñoom ñoo doon ànd ak moom ci liggéey gu mel moom mi nga xam jafe-jafe yoo xam ne jotoon la voté ba mu yëkkati ba mu voté ba yi euh, ñu daal di ba ñu ko laajee nag loo xam ne jëm na ci euh, nga xam ne sax dañu ko ci faral di nemmeeku moom la mu waxal moo di euh, jamono yi nga xam ne moom laay wax mënuma leeral na jafe-jafe am na wala déet ak lu man di xew ñu topp lépp loo xam ne jëm na ci élection yi waaye tamit ñaax na bu baax euh, kilifa yi ab discours am ñu man cee ràññeeku rek euh, muy wax ne yaakaar moo tax mu egsi fii waaye itam li ñaan rek moo di sénégalais yi euh, lépp loo xam ne jëm na ci njuréef yi maanaam élection yi nga xam ne moom la ñu dënmal njuréef yi ci am ñu daal di koy respecté waaye tamit na fekk lépp jaar ci yoon bu dee nag candidat professeur Issa Sall moom xam ngeen ko Tataguine ne yëkkati na ko ngir jëmale ko ci jongante jiitu réew yi mën na na caa dem na sax ba koy misaal ci boppam di xam le moom daanaka jàmm salaam rek la ñu ko xamee euh, depuis bi mu tàmbalee ba léegi te it nag jàmm ak salaam joojee lay ñaan ñu daal di koy continuer euh, sénégalais yi daal di mën a voter ci jàmm bu ko defee tey euh, am na yaakaar ne réewum Sénégal dina ci jot bu dee Idrissa Seck ndaamal Kajoor tamit noonu la demee moom tamit dem nag ba tooñ ki nga xam ne sax moo di Macky Sall di ko xamal ne sieste bi wa nelaw bu nelaw ba yeewu rek résultat yi wootee ci dëkk bu sell bi di Touba comme ni ngeen ko xamee kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko kaddu yi jàmm ak salaam donc waaye tamit kaddu yu reetaanlu comme ni euh, euh, nga xam ne candidat yi jot nañ ko yëkkati jëmale ko ci jongante njiit réew yi nga xam ne nag moom la nekk nii. Euh, après ñu dikkaat rek ci juste touru bureau de vote yi nga xam ne jot nañ ko def def nañu université bi nga xam ne moo nekkee ca Madiana foofu nag nekk centre bu nga xam ne bari ñoo xam ne dañ gannaaw ba ñu demee fi nga xam ne nag moom moo di université ba la fa jot a nemmeeku euh, daanaka xat na lool maanaam bari na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi doon bàyyeeku fu nekk ngir ñëw voté euh, foofee nga xam ne nag moom moo di ca université ba waaye amagul jafe-jafe bu mag comme ni ñu ko ràññee woon ci élection législative yi nga xam ne moom la ñu génn jamono ji nag loolee mënees na wax ne amu fa waaye ay barrière waaye tamit way takk der yi sax ñoom ñoo doon jàppale ñi nga xam ne nag ñoo di askan bi ngir ñu daal di voté kon nag foofee mënees na ko wax fu ko soriwul dara muy daara ràññee muy climat bu nga xam ne jàmm ak salaam rek euh, moo fa am jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi topp 24actu point com ci suba ba léegi